en profiter très rapidement pour souhaiter un bon anniversaire aux natifs de ce jour euh, dañuy njëkkee anniversaire u Kurotop euh, Kurotop ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire C'est de la part de Momar Ndaw Momar Ndaw donc moo koy souhaiter un bon anniversaire moom euh, Koura Top joyeux anniversaire à euh, Mam Jojo Sen Mam Jojo Sen borom Popengin euh, chéri Babacar Ndion euh, Yaay Ware Bintu ak euh, Ndiémé John euh, c'est de la part de Ramatoulaye Ramatoulaye Sen ak toute la famille Sen donc Ramatoulaye Sen mu ngi souhaiter donc un bon anniversaire à Mam Jojo Sen borom Popengin chéri Babacar Ndion happy birthday to you joyeux anniversaire à euh, madame Mbow c'est de la part de ton fils aîné euh, Nala Seck euh, de ta tchate madame Seck euh, Fat Zeybet ak tous tes enfants ñoom ñoo ñoo lay ñaanal euh, tey jii ci euh, bis bi joyeux anniversaire à Mas Fall depuis Kër Massar on lui souhaite beaucoup de bonheur c'est de la part de ta tante Ndeye Assa Ndiaye nee na mu ngi lay ñaanal gudd fan ak euh, euh, wér joyeux anniversaire à madame Mbacké euh, Mounira joyeux anniversaire to you je te souhaite longue vie Euh, santé bonheur réussite euh, totale anniversaire à Khoudia Mbaw Khoudia Mbaw nag mooy la Thiessoise moom tamit tey la anniversaire on lui souhaite beaucoup de bonheur happy birthday à Adja longue vie à toi on te souhaite que du bonheur c'est de la part de toute ta famille joyeux anniversaire aussi à Bébé alors Bébé Fa tamit euh, tey la anniversaire am euh, Bébé Fa Ndiaye c'est de la part de toute la famille depuis Kër Mbaye Fall joyeux anniversaire à Amina euh, longue vie euh, santé beaucoup de bonheur c'est de la part de saoudien noir donc loolu lañu fi jot euh, comme ay message anniversaire euh, di souhaiter donc un bon anniversaire aux natifs de ce jour malheureusement dama yéex a jot euh, avis du de de bi mais xam naa dinañ leen ko won muy xale boo xamante ni mu ngi tudd Mohamed Ndiaye mu ngi réer depuis démb ma nga réeree ñàkkul rap ah oui c'est c'est à l'écran merci ñu ngi ñaan ku ko gis rek wala ku ko xàmmee nga contacter ay mbokkam